weeru koor gi orange money mooy ànd bokk ak yéen ay xewlu yaatu yaatu tàmm leen di jëfandikoo seen kalpe orange money ngir jot enveloppe ndogu 25 000 maanaam juróomi junni yi orange money di maye bés bu nekk orange money weesu na kalpe ramadan mubarak orange ah Djibi waaw après naa expliqué. ça va eh, leen. ma accolade bi de. <laughs> koor gee tax. Eh, ça va ça va comme da njool toogal na ngeen def nag. Djibi ça va. na def na ngeen def. dafa boor bi tey baa ngi nii rek. kii sama xarit bi nag moom ci biir néeg la nekkoon. amul lu mu ndogoo te loxoom jot ah, ginnaaw. Ah, ah, taxaw bi déglu ma am naa lu ma ndogoo. yaa ni ma danga ragal ndaw si naa ñëw gunge la fital na. <laughs> naa këgër nit sos. moom moom ancien rappeur la waa Pifras la. <laughs> ñoom bu leen bàyyi fi jël. waaw. man ak ñoom Black di Raja Square ñoo daan ànd. Ah. ak ñoom taf taf noonu noonu. Ah waaw ñoom Asma di waaw ñoo daan ramandoo quoi avant groupe bi di éclater. Ah. di toj. waaw Mola Morgan bi ngay dégg <laughs> maa ko daan jox lyrics yi. waaw ñoom seen manager moo leen nax moo tax groupe tas. ñu groupe daan jox chaque concert. gis nga gis nga moo tax Sénégal rab bi doxul. non rab bi di dox. rab bi di dox man bi ma ci bi ma sibiroo laa parce que ma sibiroo kenn jëndalu ma garab. non rapport fii Sénégal dañ lay jëndal la garab. fii ba mu jàppal li ma doon waxtu noonu ay texte la quoi. ne reprend la waaw da ngay wax. man duggoon naa ci mais dama teel a génn. Hmm. dama dama jaay kaset jarul. Hmm? man ko kaset laa doon jaay waroon dem ci Talla Diagne. ñu ne ma xaar kan. Talla Diagne. ça va ça va ça nga fekk ñu ngi dogu kaay toog. man man man peinture lay dogu. Eh, waaw ci yoon la lay teg foofu la ñuy defar kaay nii wala kaay toog ba ah, dogu rek. kaay toog kaay fi ne man sax lay dogu de. ah. Hmm? toog bëriwul. Hmm? non. ku baax. doxal ñu defal la non dana waaye yow eh. loolu am na yow. mayonnaise ba la. non naaj mais moo tax may seetlu. what the fuck yeah ah doon na eh. ok di rek baax na di rek. non non non café. xam nga. yow de moom cag-cag la moom am na licence cag-cag. ah lañ war lijjanti. état parfois dañuy seetaan lu bëri. baax man noo man garaawul. garaawul de. defaral jibi café kon. jibi xaaral café. doo leen naan café bi ci kanamee ñu ay eh, jaaree ci ndey mbay mu jox la fonde naa ko fay. doo naan café 22 heures ñu reer. fonde bi dafa jeex. waaw jibi. jibi ñëwal 22 heures la ñuy reer kay lu tàng jibi. rice rice bàyyi dinaa ko gérer. 22 heures la ma ndax yow yaa ma invité waaw ah, da ngay xaaraan may xaaraan kay yow bul xanaa ah, sa gaz daa jeex sedd na de li xasu looro kaay leen na ma ngeen ñëw ñu añ baax ba heure bii man wóoru ma nga ne ma naa la ñamal lu tax ma lay ñamal ndax wóoroo ponkal mu toll na yow wóor kii kum yàpp jigéen bu woorulee jar na laaj lu tax nga naan ko wooru. ah man maa ngi néew lu ma teree woor man mi yow yow yow da ngaa sañ a bañ a woor yow 30 yi da ngaa toog benn jour rek nga ne doo ko woor. waaw xanaa doon nit may nit. waaw léegi xamal lan. waaw ñaata jours lañu xam nga dañoo bëri. waaw léegi man sama licence daa am problème ko. sa licence sama licence moom maa ngi ci tuuti signature bu ñu delloo waatee signature bu rek mu ak yow bu ma kenn sonal li may aññal la jaram bu féetéenale waa ju baax ngir yàlla suñu taluma lekk xel de xel moom mënuma ko lekk ci biir sa bët yi nan lay añee danga nga boobu ma def waaye léegi ba duma añ nag man na mënoon nga maa ñamal nag lii lii ay mënoon nga maa bàyyi moom mos rek lu muy sab de eh, naa woor de démb démb xëdduma hmm? nga bi nga biñ bi dog jotee benn tàndarma bi ma lekk ca laa du xëdd du reer te ngoon gi dama doon xeex ngoon gi xeex naa fi ñetti yoon xeex bu métti sax waaw xeex naa ñaari jigéen a benn góor xeex bu métti maa ngi nii boole ko sama bopp bi ma may fanaanoo bopp bi moom laa yeewoo sama lam bi lewet fi nekk nii kër gi voilà gis nga sama bët yaa ngi waaw non non tey rek. waaw. jéggi si. Eh, woor de. ah ak affaire rek ñoo ma ay biir bi daw. xam nga ay ay jaare ma buy mos mooy mos. mos mooy mos. commence. commence. commence. buy mos mooy. yow de da xaru bala bala ngaa dog di xaru de. yaa ngi rey sa bopp bala ngaa ndogu ji. li lay jàpp rek ka ma jàpp. gis nga lu gën a compliqué mooy néewu koor. Hmm. boo fi xaroo ba dee fi te man du ma ah, du ma la am na de. dama lay denc ba koor te ñu yóbbu. Hmm. bi hmm. am na de. kay wax daal. jege si nii. jigéen la moom jigéen la. waaw yenn saa day am yu koy dab. moo tax ñoom mun ñu woor weer bi yëpp bu jeex yow muy góor yàlla yàlla teg la koor gi woor ko ci fulla ak jom lu ko mooy booy mos mooy mos bu leen ma fa man de mosatuma kon man comme da bëgg a mos man moom awma problème ñëw ma mos ñëw ma mosal leen Hmm. yéen laay waxal baax. man moom la woo man man léegi hmm. dara man damaa fair play man. man la woo man man non nañ dem rek garaaw la. garaawul waaye xënd nga sa bët yi man ma luy ful. vermicelle bi am na de. roof bi saf na de. Eh, da nga hypertension kaay lekk. ah. loolu leen rek am na amul solo. bu ngeen di mos may mos. bu ngeen di mosi ma leen di mos. ngeen di mos may mos leen benn benn nokka leen foo ngeen dem laa amu leen lu amu leen lu ngeen xalaat dama yaakaar ne yàlla moom mu boo yéegee mu ngi kaw boo ci suuf mu ngi ci suuf boo doxee mu ah, gis ngeen kii la moom mu ngi lekk yéen da ngeen war a lekk hmm? xam ngeen lan moo tax lekkul xam ngeen ah xam ngeen loolu dama leen di wax doodaan bii doodaan bii mooy tax eh ay siyaas li nga wax maa la gën a xam waaw kon kay jeex na ngeen bugg ko topp leen yàlla ni lii nii ngeen gis yàlla moo ko wax ku woor ma defal moo ko bind ci wuraan ku woor ma ñaanal la jàppal la defal la aljan hmm? nga am ko ah kon yow tamit li nga def nit ku baax du ko def su même bu fekkee di nga am doo daan bu nga xam ne mënuloo ñàkk a woor jëlee sa lekk bi nga yóbbu ko si néeg ngeen lekk foofu. fii ma amee envie añee fii waaye waroonoo añee fii ñoom ñu ngi toog fii seen xel loolu moo tax ñu nar jël seen xel transféré ko si lekk bi. bu ñu leen man daal dañ maa da nga war a xool si yàlla nag. xool naa ci yàlla mais fii laa yàlla waxul loolu yàlla dafa wax bu ah. ngeen di lekk ngeen suturaat seen bopp ngeen dugg si biir neex yéen a ngi tax ñi jaay nañ seen ngor ba pare yéen seen biir xam nga ne lii boo ko tegee si diggu place bi. ñëpp dégg nga bu amee nag da ngay bàyyi boo boo dix-neuf heures trente. ndox na nga yóbbu ko si biti. sax na sax papa yéen amoo leen lu ngeen fi eh Naaya. waaw gàddul lii nga dem si biir. kaw damay fii benn peleña. gën a eh, demal seen eh, sa yoon nekkul foofu. fii baax na bàyyi ko mu toog. Eh, ñu bugg ko. kaw ki déranger wuñ de. déranger wuñ de déranger wuñ de dara. léegi bàyyi ba ndox jot. après ndox rek après ndox rek après ndox rek. waaw soxna lekk waaw waaw nga lekk sa lekk. la moon déranger lekk. ku lekk ma rey déglu ci ko ku lekk ma rey. non moom laay wax moom mu lekk. non lekk da nga ñëw liggéey. ku lekk ma rey. dagal ci ko sa yoon nekkul ko. weeru koor gi Orange Money dina ànd bokk ak yéen ay xéwal yu yaatu waajal ndogu bi moom ak Orange Money dong la fii ba le 22 avril jëfandikool sa kalpe Orange Money ngir mën a bokk semaine bu nekk ci 100 clients yu ñuy may 25 000 francs CFA. et eh oui privilégiez votre calpe Orange Money pour vos opérations de transfert national sous-régional ou de réception internationale pour tenter de gagner 25 000 francs CFA chaque jour weeru koor gi ak Orange Money dara du ko dab Orange Money weesu na kalpe Ramadan Mubarak. Orange Monnaie est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Monnaie. weeru koor gi orange money mooy ànd bokk ak yéen ay xewlu yaatu yaatu tàmm leen di jëfandikoo seen kalpe orange money di jot enveloppe bu ndogu vingt cinq mille maanaam juróomi junni yi orange money di maye bés bu nekk orange money weesu na kalpe ramadan mubarak